mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax jàkkaarloo ak yéen rek ni ñu koy defee saa su ne di ànd ak yéen di leen dalal ñi nga xamante ne moom ngeen di bëgg a gis ak ay ndaanaan waaye nag ñu dalal koo xamante ne miin nañ ko ci rédaction bi di Sen Buzz ak Sénégal Buzz 221 di suñu frère Pawlish Mbaye ñu seet ko rek bëgg a waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di actualité dañ koy bàyyi rek mu nuyoog bokk internet yi Pawlish ñu ngi leen nuyu baax di la char maa ngi nuyu Sénégal yëpp ku nekk sa tur sa sant euh, di nuyu samay xarit di nuyu ñi ma bëgg ak ñi ma bañ dèjà ak ni ngeen ma fekkee ni sax doon naa nelaw dafa wax joo xam ne tey euh, damaa yitteen wax joo xam ne damaa touché wax joo xam ne damay xam ne jull ak moroomu jullitam moo tax euh, mais heure bi doo heure émission en mais il faut ma il faut ma nangul ne li ngeen di def. actualité bi rek ak si lu ñuy war a waxtaanee ah. acca ba tey rek ah actualité bi nga xamante rek moo tax tey ñu seet si ko bëgg a waxtaan ak moom mu doon ci mbiru ki nga xamante ni rek moo di suñu sœur boobu di Fambaye ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na ko suñu borom yëkkati Pawlish Fambaye feebaroon na ñu seeti woon ko am yi nga xamante ne tey juddu woon na ci feebaram boobu war nañ koo faj ak faj ba li nga xamante ni tey toll na li nga xamante ni moo di cas état d'urgence lan la di wax ci état d'urgence bi Fambaye toll waaw xam mun ma mun maa comparer ba xam feebar la déjà parce que Fambaye dafa nekk jigéen jigéen déjà ñun mooy suñu yaay jigéen dañ ko war a wormaal jigéen dañ ko war a jox cër jigéen moo jur moo jur wàlliw jigéen moo jur président jigéen moo jur Neymar jigéen moo jur Cristiano Ronaldo jigéen moo jur Mbappé jigéen moo jur képp ku fi aw alal rek jigéen la jur góor jurul jigéen mosoo gis góor gu ëmb ju jur jigéen góor dañ ko war a jigéen dañ ko war a wormaal parce que wormaal jigéen dafa làmboo lu bare ci àddina bu ko toroxal bu ko saaga bu ko ñàkk kersa parce que jigéen dafa nekk lu parce que sooy wax ci Fambaye man damay jóg te ma war a jóg parce que wax ju la wax joo xam ne fulla la parce que Fambaye dañuy wax mais naru moo jóg en fait parce que damaa tëddoon nelaw nii parce ci des gens damaa lekk lu bari en fait nan coca tux chicha voilà daal nar moo jóg mais ñuy wax danga maa laaj ci Fambaye parce que soo ma soo ma soo ma teeloon a prévenir ci Fambaye la ñuy wax kon damay solo correctement wax ci Fambaye parce que jigéen la jigéen bu baax la nga yëkkati sa micro nag mënoo def émission di xool fële danga may xool man mii jigéen bu baax la jigéen bu gore la mm-hmm. jigéen bu gëm suñu borom la nattu nag du wees ci doomu aadama waaye nattu nag dafa am fu mu yem damay jóg ci Fambaye tuuti. jugal ñu jàkkaarloog bu baax a baax a baax parce que jàpp naa ni li ñuy waxtaanee tamit mbir la lu la lu sori sa xol loo war a wax ak sénégalais ah. Mm-hmm. moo tax foog nga jug jàkkaarloog ñoom aca toogal bu baax a baax ñu waxtaan gémb gis nañ sorti bi nga xamante ni tey Fambaye def na ko. di ñaanaat li nga xamante ni tey moo di ndimbal ngir sénégalais jàppale ko ngir mu dem bitim réew faju ji xam nga sénégalais yi danoo danoo am yërmande yërmande mën weesu tey ku gis fi doo Fambaye bi sa day dem sa bopp xel day dem ci sa bopp ah, bu la daloon parce que mu nekk xale bu ndaw nekk mineur jongoma mel nu war a mel suñu borom teg ko nattu bi nattu bi nag yàlla teg na ko suñu borom mais nangu ne suñu borom li nga ko teg mais li gën a yokk nattu bi tamit nañ ci wax tamit yéen yéen ci internet bi yéen ñiy jël yéen dem kër sëriñ si yéen ñiy dugg kër sëriñ si yéen ñiy xool kër sëriñ si yéen ñiy li wala tey nag il faut ngeen feeñal li li faambay li dal ko ba mu sonn nii nekk ci dund ak dee suñu borom yal na ko yàlla yëkkati te bu ko yàlla bu ko yàlla yëkkatee mu sant ay waajuram sant papam parce que lii li ko dal ni tey am na papa yu bari wala yaay yu bari bu leen dayoon dañuy génne si responsable mais teewul ñu ngi ànd ak moom ñu nekk ak moom te yàlla tax na sant ay waajuram te xam naa suñu borom da ko ci génne nañ ko dimbali jàppale ko. nañ ko dimbali jàppale ko mais su ma déggee say kàddu si Serigne Seck yooyu noonu dafa mel ni tey euh, Serigne si nga xamante ni tey moo jëloon Fa Mbaye en charge ngir faj ko sénégale yëpp xam ko euh, muy di Ablaye Diop Xaas tey mën nañ tudd turam ah, moom lañ gisoon ni moo génnoon ngir faj ki nga xamante ni tey Fa Mbaye tey faj boobu nga xamante ni jëloon na décision pour faj ko Faa Mbaye bi ñu ko laajee dafa ne yëgul li nga xamante ne moo di tànn ci yaramam. waaw xam nga yaa tudd tudd tudd tudd sëriñ parce que damay bañ diffamation déjà mais xar soo ko rendee pour mu saf loo ciy def la pose question boobu. xar soo ko rendee defar naa xar soo ko rendee pour mu loo ciy def. soo ko waree togg pour mu saf. waaw. war a àndal. lan la war a àndal. ay ñoom Masseek waaw nga bëgguma publicité yi mu war a àndal. donc ay publicité ba ba ñu tàkk wala mënoo publicité bañ fay. yi sax. waaw ak ay yan ay kilmasi. ay yooyu mi war a àndal ay moutarde ak ñoom seen bu mu sax. ok ak binegar Paa Mbaye nit la da reetaan <laughs> nga reetaan mais yow mais da ngay dama la bëgg ba su may jàkkaar ak yow sama xol day sedd parce que ñëwul. ah da ngay ok il est nga sourire nag. si man damaa choqué ah. Mhm. ñoo yaa ngi woon ci loo war a def ci pour mu saf ñëwul ci lool waa xar ah, soo ko rendee da nga def mu tàdd. Mhm. ma ci takk jimbo aja de baale lépp da nga ko ci def. mënoo mënoo jël yaramu nit yaramu nit déjà yaramu nit summi ko c'est que service ñu bari leen rey li rey ñu feebar loolu leen rey ñi feebar ñëpp ñëpp xaaj bépp sëriñ si ñoo leen rey sëriñ su bari ñoo leen rey ndax mënoo summi doomu aadama nit nit faambay ni mu toll mhm. ni mu bindoo suñu borom def ko ni mu bindoo nga jël békki di ko def ci yaram beeg ay ay magi takak yàpp dafa bëgg lu saf li fonk yaram bi looloo ko funki fa amee li fonk yaram bi looloo ko funki de sëriñ si ku ne jël oromasi magi tak jimbo magi tak dëbbaale ah, ah ay fël-fël ay carbonate di ko di dis naan si daal sotti ko ci yaram bi yàpp daa bëgg loolu day day gën a mais ñi daf mel dañuy reetaan de yàpp la la gën a bëgg ci àdduna lu saf dafa am mm-hmm. su su borom da koo bindee ni ko yàlla bindee mm-hmm. yàlla def ko ni ko suñu borom def nga summi yaramam wut sa bitee def ci ki masi békki masi takk oro masi dëbbaale woggu xeeru tubaa ajaa aju numutu fël-fël carbonate xooyal ko xooyal ko xooyal ko xooyal ko xooyal ko xooyal ko woo internet yi ñu ñëw tiim la nga ti sumi ko mu set ku yaram toll boo ci defee ki maj wala maj yaram bi day gën a funki parce que yàpp dafa bëgg lu saf mm-hmm. munoo fexe fexe fexe fexe ba yaram bi du neewi lii woo neewi yaram bi sëriñ si mënuñu koo faj sëriñ si mënuñoo faj Fa Mbaye sëriñ si tooñ parce que ki nga xamante ne moo jëloon engagement faj ko sénégalais yëpp gis nañ ko mi Abdoulaye Diop Khass moom lañ gisoon moo génn jël responsabilité ngir faj ko te faj boobu sax euh, Fa Mbaye nee na moo ko sàkk woon ngir mu faj ko ndax gisoon na koo xamante ne daf ko faj mu am yaakaar ne bu demee ci moom mu faj ko diffamation dans la ba ma demee tribunal xool ma ko wax bàyyil diffamation am naa droit wax Fambaye ki feebar am naa droit wax ak moom mënoo ñëw ci yaram Fambaye bi ni mu toll ak yaram bi ni mu bindoo nga jël ay kimasi ay masi tak ay aju nu tu di ko sotti ci yaram bi mënoo fexe ba yaram bi du funki li gën a fi yokk feebaram bi li ñu ko xëpp ci yaram bi yàpp daa bëgg lu saf te yaram boobu yëpp macha allah yàpp la mënoo leen fexe fexe ba yaram bi du neewi mënoo leen fexe ba yaram bi du neewi na ko nit ñi dimbali nit ñi jàppale ko nguur gi dimbali ko te yàlla rek tax nit ñi jàppale ko ñu yóbbu ko ñu volom mu dem tukki yàlla defal ko suturam ñu faj ko mu mën a dimbali yaayam ak ay papam am am doom ngi demee Seydunaa Muhammad nit ñi jàppale ko parce que Fa Mbaye doyul lenn du ay wax du ay ay moom it mu réglé ba mu réglé ba vidéo yu muy def parce que nit ki mun ñoo feebar sénégalais yërëm la ngay def vidéo def ay make up ki ay faaro di def ay ay émail ak ay fuddang lu nekk da ko sa kanam bi lu nekk da sa kanam bi nit ñi du la yërëm naan ki tane na li ko dal démb dafa man dama choqué en plus dama métti parce que dama koy xoolal ni samay waajur mais tane boobu aussi moom wax na ci parce que nee na nangu na ndogal li ko yàlla dal mu sant ci bu baax a baax a baax mais vidéo bi génn euh, ki ko doon faj aussi moo ko laaj waaw mais mais parce que xam nga àddina bëgguñu loolu siiw moom na xool boppam ak ni mu bindoo ak yaramam ni mu toll ak moom i tamit ban ban ban dimension la toll bu bu yëgoon ci yaram bi sax tane sax mën na def fukki vidéo juróom-ñaar mu yëgoo ci yow yow yow faama yëgoo sa yaram yëgoo sa yaram tane nga def vidéo sénégalais kenn kenn dootu la yërëmati te naan kii tane na yow boo noppi woon tukki nga bu yàgg man xam naa xolu xam naa seen xol xam naa seen xol xar sax bu neewee nii xar xar bu meloon ni ni xar meloon ni nga mel waa séraate nañ ko opéré ko asama yow mi nit nga xam ni ngay jullit ñun ñuy jullit muy chrétien musulman juif ku gis nii nga toll da lay dimbali mm-hmm. xar sax xar billaay wallaahi laa bu bu lekkee mbuus. ba sadd ñi ko mën a dimbali waa Siraas ko mën a dimbali dañ koy woo. te yóbbu ko si ah may dafa mel da ngay koy dimbali yóbbu ko seen seen seen seen kii hôpitaux yi. faj ko ba mu wér xar mi génn asamaa yow mii nit faa bay yow mii nit suñu borom suturaal la boo tanewul da ngay régler xam ni tanewoo bàyyi vidéo yooyu yëpp. di wayeen toog di def ay make up pour dalal sa xel ta dalal sa xel te sa xel dalul sa xel yaay dalul sa xel papa dalul lii nga teg yaa ko teg sa bopp faa mbay boo feebaree da ngay toog xam ne Sénégalais yi mën nañ laa dimbali te dinañ la dimbali bu la kenn poussé ci loo bëggul en tant que voix de kii porteur de voix mm-hmm. ah ah man am naa droit wax ak yow te man dinaa ci jàpp am naa ay xarit yu ma yu la mën a jàppale am naa ay xarit yu mën a dimbali mm-hmm. man mi dinaa def kim play kattan lu ma am dajale ko mm-hmm. jox koo kin ko war a jox muy say waajur ñu dimbali la nit bu feebaree da nga war a xam da feebar te nga bàyyi sëriñ si ngay dem jàkk tamit ak ah, jàkk ak jaaxle mën na def foo dum sëriñ dem sëriñ yi mënuñu laa faj sëriñ si dal lay ray boo amul sans sëriñ si dina la rey de fa mbay boo amul sans sëriñ si dina sa yaram bi ñuy def ay békki oromage yi kimas yi aju nu mutu lu ñu xëpp ko sa bi te yàpp dafa bëgg lu saf sa yaram bi li tax mu néew li liñ ciy def la day fudd kimas yi day fuddal yàpp ma ci takk day day day day day néewil yàpp da koy gën a safal rek leen fa mbay nga xam ne suñu borom moo teg lii nga teg sénégalais yi dinañ la dimbali barke Seydunaa Muhammad dinañ la dimbali bu ñu amoon juróomi nit yu mel ne waale faju nga bu yàgg te xam naa xol waale waale bu ko ci xam nu def day tëgg ñaari soirée mu mat saa mi mu jox la nga dem. mais ci loolu aussi bëgg naa ñu bëgg naa ñëw. xam naa xolam de. boo boo amul boo bu ko ci wax ci soofee ñu naan ay werante yi nii kay faj barke day tëgg ñaari soirée barke Muhammad jox la xaalis bi dana nga dem tukki te xam naa xolam. xam nga xol bi xol boobu aussi tamit Fa Mbaye tamit leeral na démb lu bëri loo xamante ni tamit sénégalais ñu ngi si doon euh, am xel ñaar ci xaalis bi nga xamante ni rek foofu laa nekkoon Pawlish muy euh, sa frère Waly Balago Seck Fa Mbaye génn leeral sénégalais li nga xamante ni tey moom la ñu bëri doon am xel ñaar ci xaalis bi mu ko digoon moom mu xam le ne nag moo ko fa téye ndax 15 millions yu ko Waly sekk naroon a jox euh, mënu koo faj waaye boobu ba léegi mi ngi sonn ci moom di ko taxawu comme ku mu bokkul ndey ak baay waaw xam nga xam nga Waly nit ko xam ne dafa généreux en fait nit ko xam ne dafa social day dimbali te bu ñu amoon ñeenti nit yu mel ni waale faamay dem na bu yàgg am naa sama benn xarit boo xam ne yàlla daka suturaal mu góor a loolu Kër Massar ku jàppale Kër Massar ki am yërmande ki def social ndax social mu tawee su dèjà mu ne tabaxal sa kër dafaa nga jox ko 100000 dafaa nga jox ko juróomi dërëm mais da koy def te yàlla tax day dimbali nit ñi te yàlla tax ku ci mel ne góor a dina def participation mhm. parce que yërmande lay dox ak socialam mhm. doxul daraay ngis su suñu xamante maa moom du tey dafa yàgg mhm. tey su ma demee ci moom ko góor a dimbalil Fa Mbaye dina am bu dee sax dina ko jox 100 francs dina ko jox parce que dafa nekk social nit social la kuy sa kër di taa mu génn la tabaxal la ko te ak tax boo amee fekko boo amul fekko kon ku baax la kon ku am yërmande la nga xam ne waa Kër Massar gi xam nañ ko koo xam ne dafa baax gore dal réglé kenn xam ko du dox def dara ngir sel day def te yaa rek tax te xale la na ko Sénégalais bàyyi xel koo xam ne loo am mu tawaxal la loo yor mu tawaxal la lu trian xam na boppam xam na mooy kan xam na fu mu jógee xam ne fu mu bàyyeekoo fi mu dëkk bëgg na leen fi mu dëkk fonk na leen loo aw loo wax mu ne man Kër Massar laa xam xaw ma feneen bu neexoon jël ay ville dëkk ay ville parce que toll na foofu mais loo xam ne Pawlish awma droit di romb Kër Massar na ko suñu borom jàppale yal na ko yàlla suturaan mm-hmm. yal na ko yàlla gën a bàyyi ci liggéeyam mm-hmm. te nii tabax tamit Fambaye jour boo tanee mm-hmm. góor a dina la tabaxal lenn ma ne xam naa xolam dinaa la tabaxal dugal fa sa yaay dugal fa sa papa xam naa loolu bu juróomi nit meloon ni góor a àdduna kon Fambaye tane na waali moom li tax yàlla yàlla di ko suturaal dafa ne nit ku baax barki Seydou man mii sa xarit man mii nga bëgg fonk ma yërëm ma Paa Mbay mii gaawal ci ay mbiram ndax yow képp laa xam ne yaa mën a gaaw ci ay mbiram du keneen nag yow képp képp képp képp képp laa xam ne yow rek mën a gaaw ci ay mbiram muy yow te jour boo ko jour boo ci doxee barke yonent bi Paa Mbay dem Paa Mbay tukki barke Muhammad billaay wallaay jour boo doxee suñu borom dina ko suturaal suturaal mu dem mais moom tukkeem euh, ñi nga xamante ne ñoo ko war a faj di euh, tubaab bi nee nañ moom mën nañ ko faj ci gratuite nañ ko utal avion bu koy yóbbu ba foofu rek ngir ñu faj ko loolu moo nekk jafe-jafem instant bi. am na. Ah, avion spécial lañ ko mën a jëlal boo xamante ne moom kese moo ciy dugg. mais bi ñu ko laajee loolu en jege na 100 millions. mais la la la moo tax mënuñu ko ci avion yi. te oto di yeb tere. bi nga xamante ne tey am na ko ak feebar bi ka dal mënut a bokk ak nit ñi avion foog moom avion spécial. kon nag Fambaye feebar na bu dee bu dee poids moom avion mënu cee xaj kon Fambaye feebar na nag. Fambaye hmm, feebar na mu ne Fambaye poids am attanul avion Fambaye nag feebar na avion ay téeméeri nit a ciy dugg Fambaye benn nit suñu borom mënu koo dugg avion faambay nag feebar na na ci Sénégal ay dugg nag Fambaye nag cee malaat. Mm-hmm. nag Fambaye mosul xam dafa feebar. mosuma xam ni Fambaye dafa feebar na ci Sénégal ay jug nag na ko ci réew mi jóg ngeen dimbal ko te yàlla tax waaw bu dee moom euh, euh, euh, poids am foofu la toll. Mm-hmm. ci benn avion Fambaye il est malade feebar na nag. Faa mbay nag feebar mi ngi Faa Mbaye nag maa ngi soo gis ko feebar ñi feebar yi feebar yi Faa Mbaye mi ngi feebar bu dee benn nit mu tëye ci benn avion Faa mbay il est malade feebar na na ko na ko Sénégalais dimbali Sénégalais yi yërëm ko ndax poids bu toll ni ëpp na ci doomu aadama asamaan ngay nit di jullit sa yaay yaakaar la nga nekk xale bu ndaw de 90 nekk xale bu ndaw nga précoce kon dimbali leen Faa Mbay yàlla suturaal ko mu tukki. bonne yi nekk ci réew mi suñu borom dénk leen alal ñu doon ay milliardaires ay millionnaires ñooñu tey boo amoon loo wax lan leen di wax. dañuy bàyyi ba mu dee yéen ñi jënd jënd ay nag naan yaay may ne la terrain yaay may ne la li ngeen may yaayam terrain ay nag yóbbul leen ko ko mu tukki wala moo génn àddina fii ngeen rus dëkk bi rus quartier rus moo tax ñun kenn duñ jox cër. moo tax tubaab bi bu dee dinañ dem safara yàlla ba gisante rasulullah yi ba xew tubaab bi duñ dem safara tubaab dem safara. laa ilaaha illallaah tubaab bi du dem safara safara kay ñun kay ñoo ci nar a safara kay moom mu wax la tey billaahi wallaahi di nga gis di nga gis ku romb fay nee na eh Ousmane tubaab bi nee na bonjour Ousou su ko si safara nga ne ko mu ne safara far force la dem safara hmm. te ne Ousou pap tubaab pap ko safara mu ne ok la bonjour Etienne eh, t'es wula nga ne ko ci ci ci case ci ci ci appartement àjjana parce que lu baax la ñuy def déjà lu baax mënoo ko def dem safara mënta ne c'est impossible c'est impérativement loolu mënta ne mënoo nekk di def lu baax su borom di la yóbbu safara mënta ne ci àddina mënoo gis nit ku feebar feebar maladie bu méttee métti tubaab ñëw faj ko gratuite kon sunu borom sa xol boobu yàlla may la ko yàlla du lakk ko borom xol bu bon ci àddina billaahi wallaahi boo jàppee tubaab ay dem safara yéegi nax seen bopp safara kenn moomu ko lu baax a fay dugal suñu borom lu baax mënoo nekk milliardaire wala nga nekk millionnaire lu su su su gën dem ay ay jar café ay amour café di sangu piscine ànd ak say doom dimbali yaa ko liggéey nag sa xaaj kenn du la forcé yaa liggéey sa xaaj bi nga bi nga liggéey kenn du la forcé mais yërmande dafa baax ci doomu aadama tubaab ñu ngi nekk ba Italie ñun ñu ngi nekk fii tubaab xamuñu faa mbay xamuñu fa faa mbay dëkk xamuñu ko ñu faa bay yërmande moo tax ñu xool ni poids am toll ak ni mu feewee ñu ne da ko faj gratuite yéen ñi nekk bonne volonté yi nekk ci réew mi tout la génne seen xaalis bi yóbbu Fambaye 100 ngeen dimbali ko teyar rek tax moo gën nga nekk ci almadi jënd ay range BM Porsche Cayenne teg benn son ami loo wecci kooko ami loo wecci kooko sikki zali sikki loolo ami bekki sona ami bekki sona webeb bépp loolu rek nekkee ci dëkk bi almadi seen doom yi jël seen xaalis yi di yàq di aimé ñi day reetaande putain de merde putain de merde putain de merde ñii ñu ngi dañ laa mënta muñ waaye putain <laughs> bàyyi seen doom yi sàcc xaalis bi te li euh, li olof di wax rek wala ñenn ci mag ñi di ko wax naan nit ki bu la kopp doyee suñu borom jox la pantala séddaleloo kon nañu génnee ci li nga xamante ne tamit suñu borom dénk na leen ko ñu mën cee jàppale nit ñi bu baax moo tax déjà ah ku borom alal yi yi seen xaalis lew yi seen xaalis lew ñi seen xaalis lew seen téléphone duñ ko fay danañ koy bàyyee ku sonné ñu jël la mm-hmm. ku sonné déjà dañ jël ku sone dañ lay jël am na ju bari ñoo xam ne ku sone ñi naan wuy sama ndey maay dem police suba laay dem police day tiit seen xaalis leewut moo tax bu sa papa amee alal man kon man mi nga xam ne sama papa bu sama alal ci àddina sama bu ñu ko woowee day jël téléphone parce que amelu kenn bor kenn amelu ko bor du lepp xanaa buy lepp ay téeméer lay lepp ay téeméer te cinq neex naa fay mais ñi seen papa yi am alal jarul ñee jarul nga leen des fois ñu ah, des fois ñu am ñoo xam ne am alal bu lew lañ koy am mm-hmm. alal bu lew ñooñu nag ñooñu jar nañoo ñëwee parce que seen papa alal bu lew lañ koy am jar nañoo ñëwee mais ñi seen papa am xaalis di di nekk ci dëkk bi jaruñoo ñëwee parce que am na ñoo xam ne ku leen woo seen papa ku suba incha lépp loolu la seen waxtaan lépp allah ah maamu sant naa wuyu ji de danay tiit parce que xaalis bi ñor xamuñu fu ñu ko jëlee ci njub lak lañ ko jëlee am na ñoo xam ne seen xaalis dafa lew ku leen woo bébé suba damay dem màkka ñoo seen damay umra ji dem màkka ñoo seen xaalis lew na mais koo ci woo mu ne la bébé suba incha allah fekk ma dig de ñooñu ñooñu jaruñoo ñee de jaruñoo ñee jaruñoo ñee di di di di di di jàllale benn message ci sénégalais yi ngeen bàyyi xel Fambaye feebar na nag barke salaatul faatixa feebar na man damaa ñàkk su ma ñàkkul woon dinaa dimbal dinaa man am na am naa xol bi barki salaatul ala nabi bu dee awma xol bi yàlla ba gisante rasulullah yomal xiyaam soo amoon fukki million dinaa jël 20 millions jox ko ko barki alquranu karim ak ma suul sama ndey ak sama baay billaahi wallaahi te nag dinaa dugg ci ñi ma xam ñëpp kettal ko moo ma ko kettal jox ko ay waajuram dinaa ko kettal une semaine dinaa ko kettal dinaa dugg fépp di ko kettal te yàlla rek tax te yàlla rek tax moo tax ma koy def sénégalais yi ngeen bàyyi xel nit ko feebar feebar dafa metti tàngaay bi ni mel na ni Fa Mbaye toll téeméeri kilim bu la tiimoon métti boobu du deñ parce que ni mu topp poids bi mu toll tàngaay da lay gaaw a dugg. mais aussi euh, comme ni nga ko waxee rek ki nga ket ci sénégalais yi pour ñu jàppale ko ngir mu génn euh, moom ci boppam ñaan na ndimbal ki nga xamante ne mooy le président de la république ak euh, so ak ki nga xamante ne mooy le la soxna Marième Faye Sall ngir ñu jàppale ko ñooñu suñu borom teg leen ci bopp réew mi gis kaa bu mel ni ñoom seen taxawaay la war a doon. xam nga wax ci est gis nañ ko déjà. est gis nañ est-ce que tamit euh, fii euh, à travers le médias ah, lépp lu génn tamit euh, même boo ko gisul tamit di nga am ku ko jege ku ko gis aussi parce que am na ñoo xam ne dañuy dañuy jege nguur soxor wala dañuy jege nguur soxor mhm. pour jàpp leen mu joxee xaalis xaalis ji jeex xanaa xam am na ñoo xam ne dañuy jege nguur soxor bëgguñu Macky Sall génn ma ne Sall génn xaalis dañuy jege nguur soxor ma ne Faye Sall xam naa ne bu gisee lii barke yonent yàlla xam ne da faj parce que moom nday ji ceex la njaaxaane lay tëddee mhm. is yaay comprendre na Macky tamit nit la te jullit la président la bu gisee lii dina fexe ba faabay faabay tukki c'est que bëgguma ñuy blâmer nguur gi am na ñoo xam ne duñu ko gis am na Macky des fois am na lu ko doy des fois mu tëdd nelaw Marème mu tëdd nelaw du ko gis sax mais ñi koy jege ñoo ko gis te duñ ko waxee am na ñu bon am na ñoo xam ne dañuy jege nguur te bëgguñu nguur gi te lenn ci dëkk bi feebar feebar xam naa lu ñu gis président suba ñu suba ñu dem Paris ah. loolu lay xam président suba ñu dem lekki loolu lay xam te président bu gisee lii billaay bu gisee ni Fambaye toll ni Fambaye toll billaay dina ko dimbali bu gisee ni Fambaye toll dina ko dimbali président Macky boo ko gisul yaa na ko gis sama sama sama interview may def yaa nga ko gis nga yëkkati Fambaye nga dimbali ko di la ko vol privé vol privé Fambaye dem fajo bu fajoo lu ne mën na cee xaj lu ne mën koo xaj nga dimbali ko mën na nekk Fambaye mën na nekk député Fambaye mën na nekk maire Fambaye mën na nekk mën a nekk président faawaay mën a nekk lépp parce que métti bi yàlla teg la ma mënoo wér suñu borom dina teg ngay pauvre mënta ne te la 25 ans rek la am parce que mënoo a am métti métti bu méttee métti suñu borom ngay wér suñu borom dina teg leneen mënta ne président rek mënoo doon wala nga nekk député wala nga nekk avocat wala nga nekk c'est tout daal il faut nga nekk loolu loolu mënta ñàkk barki alxuraan kay mënta jàkk mais ba tey comme ñi euh, nga ko waxee sànq rek ngir mu gën a teewaat ay boppam ci ay vidéo yi nga xamante ne aussi mi ngi koy def ak yooyu noonu euh, moom wax na ci vidéo bi nga xamante ne sëñ boobu def defloon na ko ko ngir màggal daaru salaam gi vidéo boobu nag moo tas ci réseaux yi ñu ne naan Paa Mbaye tane na tane Cheikh man xam loo métti bu defee vidéo daaru salaam daaru salaam dinañ màggal mu ñàkkate vidéo daaru salaam waa daaru salaam dinañ màggal waa dara waa daaru salaam waa daaru salaam te isa xam nañ Paa Mbaye mu def vidéo waa Darou Salam dinañ màggal mu ñàkk def vidéo màgg gi dina am faa may xam la la teg réglé dal ni xam ne il est malade dafa maladie loo xam ne avion mënu laa yóbbu avion bu am nit benn nit sax mënu koo mënoo mënoo bokk ñaari benn nit yow rek yaa ngi dugg ci avion kon maladie moo la dal bu méttee méttee bu la defaree vidéo waxuma laa nga def vidéo di rosa de make up faa may da ngaa fexe bu la nit ñi yërëmee da nga yërëm sa bopp dèjà nga bàyyi vidéo yi di def ku interview bu jot nga génn bëggatuma la nga génn sooy génn te damaa bëgg nga génn tane ak xel mu dal génn def sa tooy bu baax def say basket ñëw soirée waaye li la way lu neex a neex laa bëgg bu booy génnati yaa na nga génn xel mu dal génn tene interview ku la dimbale ba moment bi dootuñu la dimbale sa feer bi dafa yàgg ci les durée il est duré Fambaye ça fait putain de Fambaye putain de merde il est duré Fambaye il est malade Fambaye dafa duré dimbali leen Fambaye dimbali leen Fambaye il faut ngeen dimbali Fambaye il faut ngeen dimbali ko xale la xale bu ndax oh Fambaye c'est feebar na de ah waaw baax na Fa Mbaye feebar na de dimbali leen Fa Mbaye dimbali leen Fa Mbaye ngeen jëm Rasulullaay te sëriñ si ngeen réglé sëriñ si ngeen réglé bàyyi ku feebar ngeen sol ko seeni i carbonate ak omo magi tag ak di la yuuxu di la xët xët rek mën na tax Fa Mbaye dënd bi rëcceeku xët rek mën na tax ñi feebar yëpp seen ñi xanaa rab yooyu dindi ko ay dóor ak i xët ak rab yooyu da ngaa war a ñoom sëriñ si mosu ñoo gën rab jour bu ñu ko gisee bu ñu gisee rab bu dee dun daw wala ñu wala ñu saw seen tubéy yàlla ko seen di rasulaa rab da nga am na gis rab di tiim ko gis voilà ku feebar na nga dem ci docteur yi ñu faj la mooy da ngaa yor ay rab nag sa sa tuur fi nga dëkk fi nga dëkk mooy sa tuuru maam mooy sa tuuru mbokk nan la faj koo gis rab bu nekk tuuram la yow mi sa rab daa am tuur bu la sa rab daa sa tuur nga jëm nit mun laa faj sa rab la mën faj waaye kii dafee war nag sa yaay jang-jangee la yóbbu la ñu xooj la suur la ba noo noo jëlee ay xobu garab di ko suur nit xanaa xamoon loolu loolu day sekki yaram day tax nga sekki sa biir bi na dàgg sa yaram bi na dàgg loolu feebar mën dawee su loolu xobu garab nu ngi koy tiimalee nit di la xët ku xët nga tooy te ñi feebar yi rab ay xët la leen jàpp sëriñ si rek la leen sëriñ si rek la leen nga xam ne ku na say xatti mati dee am na de ku na say xatti mati dee na dee am na de dee am na de bàyyi leen li ngeen def dee am na de am na de dee am na rek leen ngeen bàyyi li ngeen dem man na waxoon naa ne du waxati ci benn sëriñ mais li dal Fa Mbaye mii ti ma choqué en plus dama métti en plus il est duré les maladies il Fa Mbaye des maladies il est duré Fa Mbaye il faut dans la vie il faut être intelligent nit ñi xam ne Fa Mbaye il est maladie nan ko jéem a dimbali kettal ko mu am 100 millions dem Italie ñu faj ko gratuite il est duré Fa Mbaye il est maladie de waaw ah, waaw baax na te tamit dafa am koo xam ne sama nit la ginnaaw yàlla su ma mënumaa wax te tudd ko muy Cheikh Cheikh ba borom oto yi ginnaaw tey suñu borom tey bu oto baaxee oto rafet sa oto kuulee wala mu yàq moteur bi yàqu boo demul ci Cheikh ba demoo dara ci àddina golf moom noonu la tudd dafa mel ne waa golf ko woo waa golf foo ko woo ne ñu amuñu droit jox kenn ay ay démarreur ordinateur moteur amuñu droit toobee ko woo Ba ne ko amuñu droit golf bu fi wàcc yaa a mën a defal nekk postu caaroy waa postu caaroy gëm ko postu caaroy xam ni mooy kan mu jub tànk njaaykatu ma tudd yu bari ay sàcc lañ Cheikh képp laa gis moo xam ne da lay jaay moto garante loo ko 15 jours loolu mu tawee su garante am yërmande ci nit xam nit mooy kan jox nit cër xam nit fu mu toll oto nit da kaa war a am ci yoon bu la ko suñu borom mayee mm. bu yàqoo da ko war a gaaree moom day yàqu nga am nga am nga ñàkk am da dimbali te rek tax kon ni sénégalais yi intelligent muus kon ni ma yeddee ci sëriñ si ñiy jëndi oto wala ñuy defar oto wala golf dem leen ci seex Ba borom posu caaro yi mu dimbali leen Audi BM Mercedes Ford boo demee ci Cheikh day mel ni fa la dëkk fa la juddoo parce que bu nekkee xale bu ndax papam loo doon jaay dakaa tar bi kon ni Balla Gaye dondoo bëri dondoo dondoo moteur démarreur ordinateur bougie xaalis oto lañ ko ngénte ak ak huile waaw macha allah moom frère Cheikh Ba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaare ah, di rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy taxawu sénégalais mais Pawlish dernière kàddu yi lan lay doon rek ñu daal di tàmm. ngeen sama xarit yi yàlla defal leen